asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience euh, dañu dil siwaatoon rek ndax coow li bari na coow li bari na te jaru ko euh, mësu koo jarit ndax bu fekkente ne cumul bi ngeen di wax du tëb rek xorom ci cin defe naa danga nga taalaale wala nga russi ñulug sax door caa def xorom waaye doo tëb sànni xorom ci biir cin euh, dama leen di fàttali ne amu leen assemblée nationale assemblée nationale bu civilisée amagu leen ko amagu leen ko la nekk ci biir assemblée boobu salle boobu ak gétt la nga xam ne kenn ku ci nekk dañ la fa dugal yeew la am luñ la digal nga war koo dox askan wi yëkkatiwu la ah dafa mel ne ngeen bokk fu ngeen jëm ah, te ngeen àndal jubuñu jiite leen topp ca day am solo maanaam ci aw ñal ci aw ñal ngeen di aw ba daje ca barab ba euh, kenn ku ne xam na ni kumil ni ko Pastef xalaatee baaxul ci am réew ku ne xam na ko waaye mënoo xëyit def député yëpp député du peuple mënta ne mënta ne comme yàlla dogal na ci am nattu lañ ne assemblée nationale ay kuréel makkee fa nekk ak jigéen yoo xam ne ak saagante budget bi gis ngeen mi ñu koy voté amul kenn ci ñoom koo xam ne wax nga jëm ci bourse bi wala nga jëm si ci budget bi ci li nga doon wax lépp mu ngi jëm ci xuloo xaste wax tuuti ci mbir mi door di soir ci say xaste ak yuuxoo xam ngeen ne kon loolu du assemblée buñ amee nag ay cadre yoo xam ne jege nañ Ousmane Sonko ay cadre yoo xam ne aussi liggéey nañ ci le projet pastif am occasion dugg ci assemblée nationale bi dama ne teg leen fële affaire yu kiwil ba lijjanti assemblée ba noppi door a xorom suñ cin le maximum de cadres le maximum de cadres ki maîtrisent le projet de PASTEF ku ci am occasion dugg ci assemblée bi même boo doon commissaire de police bul bàyyi demal toog fa demal toog fa ndax ñii ngeen ko séqal duñ ay député ñii ngeen ko séqal ay nit leen ñoo xam ne Macky Sall leen fi yónni boo jëmee ci làmb ñu fay bëree ñaari loxo ñun suñ écurie ne bëree benn loxo lañ bëgg ci làmb yi lay dikk bu làmb ji dikkagul bu leen bëree benn loxo buñ ko bëree da ngeen gaañoo kën def niñ def aw fin aw ba foqar ci assemblée bi fóot ko sangu ko tabaxaat ko defaraat ko teg ko ci yoon woo xam ne ku dikk ni lii mooy assemblée bu boobaa nag Ousmane étant président de la république mën naa proposer à l' assemblée nationale pour problème mu njëli fi cumul bi mais tant que cumul bi jóge gu fi député yi Macky Sall mooy leen yabal dund ay député ngeen di civiliser civiliser naan ay cumul da ngeen ko rëccu. te bruit bi mu indi ci biir Pastef jëru ko woon jëru ko jëru ko jëru ko kan fekkus ci deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre mooy lépp moom la Ousmane wax te amul benn loi bu aaye lii ngeen naan kumil Ousmane focus deux mille vingt quatre la wax pour ñu focus deux mille vingt quatre nag il faut ñu nettoyer assemblée nationale bi teg ko ci yoon jaarale ko ci yoon pour ñu mën ko nettoyer jaarale ko ci yoon il nous faudrait de vrai Sénégalais il nous faudrait de vrais députés du peuple ay députés yoon ne parti yëkkatiw leen bu boobaa dama ne bu neexee def cumul Birame Souleye bu fekkee ne am na adjoint wala ñaari adjoint yoo xam ne ña nga ca mairie ba man koo taxaw man koo remplacer ginnaawam na ñëw wuti bang wala laal def ko assemblée nationale di fa fanaan ak yeewu kon ubbi suñ xel yi dama ne séq ñu ko ak ñu civilisé ci ndëpp ndëpp la nekk ndëpp boo jëm ci ndëpp nag xalaatal nit dana jafandu ci sa baat ab dof dana jafandu ci sa baat te assemblée ngeen jëm kenn ku ne xam na ne jaasi ak paaka dana fa mos a dugg ndax député yi nii ñuy waxe seen arrogance yi seen saaga yi ah, dama ne du ñàkk far ba Ngom ak nii muy waxe nii muy waxe du ñàkk mu di fa jaasi te bu ko fa indi na fa indi pistolet lii du assemblée yéen waa Pastef du dara du dara li fi tubaab yi bawoon képp sam fi député yoo xam ne pour mën a dimbil le pouvoir bi fi nekk looloo fi ne ba nëgëni làmb jigéen jëm du làmb benn loxo làmb ñaari loxo fay bëre lu ngeen doon doon mbër te amagu leen expérience su mbër bu ngeen ne benn loxo laay bëree ci suuf ngeen jëm waaw kan teg fële lële focus ci 2024 bokk di ci waxtaan di ci xalaat ni assemblée bi tëdd ay dof ay dofa ne ñuy xool yan xiin lañuy yóbbu pour ndëppal leen pour ndëppal leen bu sayee ba noppi ba mu wóor ne téye nañ seen i bëñ bu neexee nag te Ousmane nekk président ñu dugal benn motion pour lan jële fi commune bi jële fi yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais actuellement assemblée benn député boo xam ne askan wi la yëkkati nekku fa lu tax ndég ko fa mooy li ngeen di wax ñoom leneen lañ koy dégloo li ngeen di wax dégluwuñ leen waaw bu ngeen di wax ba suba faalewuñ leen leen Macky sàll wax la ñuy def dof yu mel noonu dof yu mel noonu bu ngeen cay dem ah di civiliser ak a karawaatu tekki leen seen karawaat yi tekki leen seen karawaat yi sol ay jiin ci xeex ngeen nekk loolu ngeen war a gëm te loolu mooy li am kuro Macky dina fa mbéj jigéen yéen ñooñu kuréel na ci masa mbéj nit tëw yi mu ne këpp kuréel dana ko fa def te dara du ci mujj wérut wérut ab lesbienne de wérut dana fi mbéj jigéen laa la wax man ma xam ko ñu nekk noonu Amérique dana fi tëgg mbej jigéen te it jigéen ñi ca kanam tuuti ay tàpparka daañu ko yóbbu góor ñi bañ a daw daañu yóbbu jaasi biram mii dana nga da nga làmb poos yi fekk ca jaasi ci biir seen tur gi parce que ay baadoo la ña fa nekk ah duñ seeni nawle yéen duñ ay nit kon ñoo ngi ziar bu baax te jéggalu dellu di ñaan Macky Sall jóge fi te jàmm képp am na fi Macky jóge te bakkan du rat asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences